li El wax Pape Diouf wax ko loolu mooy li nga xam ne moom la suñu maire Bara Ndiaye dëkke ak ñun euh, ceeb bi man maay ki nga xam ne maa doon def euh, dëkk bu ci nekk lu mu fa yónnee ma woote fa laaj borom dëkk ba wala ña fa nekk laaj leen ñaata lañ fa indi ba recensé naa ci 72 villages yoo xam ni li mu fa yóbbu ci ay nombre de sac mooy cinq sac kon maanaam yeneen villages yi ci des su ma wootee dañuy wax ni monsieur le maire nee na bu ñu wax ñaata lañ fi indi ñu jàpp ne kon so bu fekkee juróom-ñeent fukki dëkk lañu yu manqué benn mu jox juróom-ñaar fukki dëkk ak ñaar li leen jox matagul sax daanaka ñeent ñeent kii ñattee ñaari junniy saako yi fanweeri saako ak juróom la la tegal kon maanaam des na foofu daanaka junniy saako yu manqué fanweer ak juróom kon yeneen fukki dëkk yi ak juróom-ñaar mënu ñoo kon xam nañ ne vraiment luubal na jënd na nag li mu wax ak jëndul li mu wax ñun dara wóoruñu ci parce que nawloowuñu joxuñu suñu gëdd joxuñu sunu cër du wax ak ñun du defandoog ñun du dindeendoo ñun alxamis comme tey la ñu woo fii conseil municipal man mi bokk naa ci ñi ko doon gën a laaj ci mbirum ceeb bi di ko gën a laaj ci gerte lu tax mu jënd ko yóbbu ko ndukk la ceeb bi it bi mu ko jëndee indiw ko fii ci commune bi da koo yanu yóbbu ba ndëkku di ko fa teg mel ni daal toujours day rawale ak di nëbb ak di mel ni daal meewaan ñoru ko farataalu ko faalewul askan wi faalewul dëkk bi faalewul fi nga xam ne fi la municipalité bi ne loolu nag moo taxoon tey jii ñu ni dañuy leen di woo yéen ñëpp pour ñëw ngeen xam ni suñu maire Bara Ndiaye lépp lu mu def fii ci Meewaan du njub du lu baax du lu rafet du lu mu naw loo nit ñi nawloowul kenn faalewul kenn lu ko neex lay def lu ko naqari lay bàyyi ceeb bi fu mu ko joxe doftal na ca ni maa ko jënd te jënd ko waa GCO moo ñu jox 53 millions ak li mu génnewaat ci biir kii bi yëpp ba sama naataangoo Pape Diouf wax na ko mu nekk too toll si téeméeri million téeméeri million yëpp lu ko ne gel bi nag ak madaar yi li ma ci gënoon a naqari mooy dëkk bu ci ne benn gel la yónnee ca jàkka ji ak benn madaaru 300 francs loolu nag dañuy wax ni ñun moom maanaam nawloo wuñu te ñun nag la askan wi joxoon seen kàddu jox ñu seen baat ñu di leen kaasal kon su dee def loo xamante ni si ñun day mel ni dañ ko cee far moo tax ñu woo leen pour leeral ñun jéemuñu la contrôler en namo mais na xaar ñu contrôler ko en aval. njort nañu luubal parce que dara leerul boo seqee ak say nawle ngeen di liggéey loolu ngeen di liggéey ñu dem ba ci biir nga jël sa yoonu bopp ñoom mënuñu xalaat lu leer foofu. d' autant plus que maa ngi koy laaj vingt quatre million yu ba léegi nee naa la vingt quatre millions yooyu xamuñu fan la jëm. yeneen conseil euh, yëg nañu ko parce que barki démb ñu ngi woon euh, conseil municipal mais la ñu ci am mooy xaalis bi engagé guma ko mi ngi trésor public ku nekk xam na ni un marché boo respecté li mu laaj lépp appel d' offre yi ba keroog ba fu nga choisir ki lay indil xam nañu loolu temps bu yaatu la. ñoo ngi envisagé. hmm, euh, saisir cour des comptes euh, OFNAC le général également danañ ko saisir inshallah pour ñu léral li nga xamni mom mo xew mewan ci nuru ak luubal